tey ñu ngi fii Stade Lat Dior de Thiès euh, ku ne Thiès wax Ousmane Ndoye lan la lay def boo gisaatee Lions yi ñëwaat fii en regroupement euh, ginnaaw bi nga xam ne sol nga may équipe nationale du Sénégal. waaw xanaa kontaan ci rek parce que amuñu lu dul lii quoi parce que ñun it ñu ci tollee ñoom dañu doon ñëw seetaan si pourquoi pas ñun bu ñu ñëwee vacances bu ñu amee temps bu mel nii ñu ñëw lu mu tuuti tuuti sax ñu sacrifier ko ñëw nekk ak ñoom quoi dafay neex ñëpp daal. Mhm. en plus da ngeen ñëw sama région. région boo xam ne football rek lañ bëgg. yàlla def tey stade bi nekk suñu dëkk. Mhm. donc gis ngeen ni entraînement gaa yëpp jàpp ci. Mhm. donc di ñaan yàlla rek stade bi jik équipe bi ñuy gagné di gagné di gagné la plus plus plus lu ñu wax rek fii rek cees rek bëgg naa lu ñu fi def rek. Mhm. mu xam ban région nga jóge rek nga am ci ndam. waaw tey jii lan mooy diggante Ousmane ak ñenn ci joueur équipe nationale bi est-ce que am nga ñu ciy dégganteel ban regard nga am c équipe bi ginnaaw ba nga ci jógee. non pas ñëpp. ñëpp. boo gisee ma yegg si léegi nii sax Lamine jaata moom ma woo mu ne ma foog ci paas ba ci conférence de presse Aliou bi dañ ma ci invité maa ngi woon foofu donc euh, man lépp lu équipe bi wax rek man ànd naa ci quoi man. waaw parce que nit amoo lu dul sa dëkk quoi. waaye. donc boo sañoon événement yu mel nii wéy di am fi si Thiès évidemment. non non non Thiès kañ Thiès macha allah quoi nañ ko préserver rek jàpp suñu terrain bi xam nga ak lu ci mënti am rek xam ni ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp sénégalais yi. Nous sommes ko bu baax mhm. Mhm. merci Ousmane de rien. voilà y a un ko dégg collègues à l'image ancien international Ousmane Doï, à l'image ancien international sénégalais Qu'elle euh, soit d'origine